إني أخاف زاد برئي من كل من بالكفر زاد جرئي ولا أولى نزل التنسر إنسان من يمون بالتبسر سبحانه ربا إليه أرتجي ومن وكفي القلوب أرتجي أجرم به ربا يقول maa ngi di nuyu da daayira bi waa Sengoña yëpp ginnaaw di nuyu waa tasaw di si baan yëpp ñëpp di len gëna fadli sa taxaway ci ñoom ndax sa mo la joté do ma wax sa tawati bop tawati taalibe yi nga wax ak sant seenu cant kon man itam ma ngi len di santal serigne bi ci seeni jëf di len sant sama bop di am ak rafet njort lool ci yéen ak yërmande ju yaatu di ñaan ci barki Serigne Touba ndax li fi li Serigne Fallou mii li ma waroon wax lépp wax na ko ak ñi ko jiitu li ci des moom mooy sant leen ak yëgal leen ne li ngeen def lépp gis naa ko xam naa ne Serigne Touba rekk nekk ci yéen ndax. as jëmm su lot nga fa sa yitte jëpp def ko ci moom la nga mën ak la nga mënul lépp nga defal ko ko moom ak cant rek lay war a mën am ak ak ñaan di sant jigéen ñi bu baax ci sa tur ak jot li nga ma jot li ci ñoom yépp di ñaan ci barkib sëriñ fellilu sama yaakaari ak ëllëg ndax ab taalibe kat ku ne ko joxeel sa bopp ma nangul la ko kooku amoo payam te moom wax loolu man fa su ma yéene doon dara lu lu murit bëgguma leneen nit bëgguma lenn lu dul taalibe yi kenn duma dégg ci kanam buur xawma sax gouvernement Sénégal lu ñu doon ak lu ñu yor man Sëñ Tuubaa rek sëñ tubaa rek la boo ma ñor moom lay dund te ci lay dee itam te fas ko yéene ànd ak yéen ñi nga xam ne moom rek leen ñor moo leen yitteel te kitaabu naa ci yàlla ne nii ngeen ma jàppee sëriñ Fallou gis na ko te man miit yëg naa ko te xam naa ne moo tax ngeen di ma ngeen di ma ndax daal xëy na yéen a xam lu ngeen gis ci man waaye man day xam naa ne duma dara man xeebu laa ku tuuti ci sëriñ bi waaye sama pas-pas ci fa Fallou moom maa ngi ñaan mu yokk lool waaye xam naa ne am naa ko ci moom ku ma doy la te yëg naa ne lu ma ko defloo ci doomu aadama yi mu defal ma ko moo tax su may ñëw fii damay taxaw fa moom ak waa kër sëñ Tuubaa yu ko wër xamal leen ne maa ngi dem ca ñoo yaakaar sëriñ tubaa te def ma bunt ci ñoom lu ñu ma wax ci sama nopp bii na faju ku ma ca xoolit ci bëtu yërmande bi nga xam ne ci yéen laa ko jël di ko yóbbu foofa na suñ borom wàcce ci moom tawfiq moo tax ma xam ne li ngeen di def fi ngeen koy teg fu wér la te at mu ne ak dolli ko dana ci am murit nag képp moo sañ a wax loo xam ne lii ñëwagul ci pas-pasam te suñu borom du dogal ko nam ko nam ko war a dogale te samay bokk laa àndal yoo xam ne maa ngi ñoom bokk sëriñ Fallou ak sëriñ Touba ñuy ñëw fi te xam teraanga ju ngeen ñuy teral tañ xaj ci rek moo tax ñu di fi ñëw kon cant gi ma sant sama làmmiñ mënu ko tudd waaye sama yaqin moom am na ci ne li ci aj lépp dana saafaroo li ngeen ci aj lépp dana saafara waxoon naa leen fi ne ku bokk ci daayira bi maa man maa man ci dooley sëriñ Fallilou maa lay garanti da nga delluwaat Sénégal te giñ naa ne loolu dara du ko dindi ndax pas-pas laa ci am ci sëriñ Fallou du man du man sëriñ Fallou la te li ngeen may jox taxut ma wax ko damaa xam seen ak cofeel ci sëriñ bi na sëriñ bi faj na sama bu yàgg lottuma ci dara waaye lii ngeen def nag dafa rëy ci man te man awma lu dul sëriñ bi li ma leen wax léegi du ma taxaw ci benn bunt ñu naan ma day day réunion ak day def leneen déedéet sëñ bi rek sëñ bi rek laay réunion kenn du ma dégg fenn bëgguma du ma dama am ngir dara sëriñ Tuubaa laay tàllal samay loxo te lu ma bëgg lépp mi te ci ñii lay jógee kon fokk seen aajo fayu ni sama aajo di fajo jërë ngeen jëf sama xol sedna na seen xel dal te bu ñuy ñaan la da wax rek day mel na ju tim ab soxam di sox mënul fep dugg bu ne mu jël ci kuram dooru ko ci day dëbb ci digg ba rek lu way soxla rek dog bi mom mokna lu way soxla rek tibbu joxe rek ci dess lu way soxla rek nako wax mustahil day am nak lol ki ñaan dafa am lo xam dafa jombu ndax dañu wax ni yalla man lu ne waye du reey gërem gëlem jaaxadal ko ab ñaankat it nak fa nga tollu ngay ñaané bu lay ñaanal waaye ci ben million bëgg ay milliards ci tang tang bi do xaw jafé <laughs> da ngeen di da ngeen di sét li nga xam moy yitté ji nga xam mo taxaw té nga japp ne lu jëntiku bu ñu ñaanee dana lijjantiku li yitté ji nga xam jàpp nga ne mënut a te nga bëgg ko mun na taxaw te mu sa diggante ak moom suñuy ñaan sa pas-pas def ko ci da ko am na ko bëggee te incha allahu dañ taxawaat fii leeral ko bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulah. lool waaye aj leen fas leen ji am jox leen waaye yéen leen noppaandoo yi. ku fi nekk di xab xabal ba ñàkk yaa xam